kaa yëpp wax na. ma ne ñoo ngi nuyu awa yeeg ñaari wax lépp dëgg la laa wax téere la. Ah. dara mënu ko nit ah ah oui waxuma pour sama bopp. déedéet waxoo pour sa bopp kay. waxoo ci sa bopp kay. Ah, nga mu tàmbalee ci man sax <laughs> te loolu sax neex na beneen bi mooy ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog yéen góor ñi yàlla def na ne ñun population bi nee nañ jigéen ñi ñoo ci ëpp te jigéen ñi faaw ñu sëy mm-hmm. kon nag faaw ñuy takk ci xale yi yaa ngi dégg di mariage ak di tante dimanche dara nekk moom syndicat bi ñi am kese ñëpp wa divorce bi nag nañ nañ di waxante dëgg vivre heureux Mhm. c'est vivre caché. waaw d'accord waaye heure caché na ci na ci dëgg jiitu rek. dëgg waaw na ci dëgg et puis na ci dëgg jiitu nan la ci dëgg nan la ci dëgg rek ñun amuñu problème. amuñu problème barke nañu mottali <laughs> yéene rek madame Faye yee a dugg ci palais ba te ñoom sax ñoom sax dugg nañ waaye ñoom it nu mënee xajal nañ xajalee du dëgg. Ah, article article article bi moom xaju fi moom. moytu leen article bi. moo tax bi ma xoolee ñoom seen programme xoola ah, bu ma xoolee seen programme dañoo engagé xoola xoola lii la wax rek lii rek laa bëgg a fàttali président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom dañu am neuf engagement yoo uh-huh. xam ne dañ dañ ciy taxaw neuvième bi daf ne promouvoir le bilinguisme en introduisant l'enseignement de l'anglais à l'école primaire mm-hmm. ba pare ñu ne remédier aux inégalités dans le système de rémunération mm-hmm. loolu enseignant yàgg nañ ko kaas xam naa mm-hmm. luy neex dàmbooj la lancer une concertation nationale sur l'intégration de l'enseignement religieux mhm. et la scolarisation dans no langues nationales xam nga dafay delluwaat ci li ñuy wax ni jikko yéeg yaa ca mhm. aju mhm. nee nañ yii fas nañ ko dugal mais li ma ci neex beneen bi muy mujjee mooy créer un ministère du numérique cum macha allah ah, lii kay baax alaw ba sal yàlla engagement la seen programme bi nag ki daan coupé connexion bi ak tiktok bi moom Moussa Bokar ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy nuyu kan ci àdduna kooku ci àdduna yow nana fa dem Podor man mi Samba ak Baye Dieye Père ak man Moussa Bokar xam ko bu xàmmeewul ci réew mi waaye man xàmmee na ma. <laughs> mukk jamais <laughs> baal ko. baal naa ko kay yow ñu dañoo am régime bu bees moo ne nee na léegi nan wàccee lépp ci suuf <laughs> yàlla wax ko bu ma yëngal nag. ñu ngi defar seen i man daa am ay ak ay nit ñoo xamante ne bugguma ko ma ciy interpeller du ma ci wax. Mm-hmm. mat naa noonu nag dëgg. waaw kii nag. d'accord kan. dañoo war a avancer. avancé. <laughs> jërëjëf merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax alors beneen ponk bi ñuy euh, waxtaanee di bataaxal bi nga xamante ne démb gii Marie Sagna. na bu sa ponk yi jeexagul. ci euh, page Facebook am. Euh, daal di ñëw ca la nga xamante ne. mooy bataaxal bi nga xam ne la directeur général de la société des infrastructures de réparation navale de Dakar CIRN daal dina koy def daal di koy adressé au groupe Dakar Naval OSATA Shipyard. mu annoncé nag la retenue de leur offre pour la gestion de cette infrastructure kooku di monsieur Saliou euh, Samb nga xamante ne moo jiite CIRN euh, dafa bëgg ñu daal di signer bi les tey ci jeudi bi alxames bi 28 euh, mars 2024 fële ca siège bu CIRN léegi nag euh, Guy Marius Sagna li mu wax mooy nee na lan moo tax ñuy précipité euh, wu yàkkamti ngir bëgg a signer bile euh, contrat te ñoom seen nguur jeex na fi mu toll nii fi ñu toll ci seen régime. mooy préparer li nga xamante ne mooy seen i bagage defar ko daal di dem waaye tollootuñu ci foo xamante ne dañuy signer ci contrat ak i def ay recrutement mu nekk coow loo xamante ni bi ñu xëyee xët yu bëri daal dina ciy xëy. waaw faaw ñu ñëw ci daal di ci indi jàngat daal di ñëw nag ci laaj bi nga xam ne man moom laay bëgg laaj lan moo tax ñuy yàkkamti di di di di gaawal pour mën a signer bi les tey. Mm-hmm. waaw xam nga dernier conseil des ministres moom démb la woon. waaw gisoo ci benn nomination. chaque jour bu ñu defal conseil des ministres ci njeexital bi day am ak nomination diw na boog alburax ak yooyu. Mm-hmm. xam loolu gas yi jeex na. Mm-hmm. léegi euh, kii comme ni nga ko waxee ni ko Guy Marius Sagna waxee muy euh, Dakar Naval OSADA. Euh, bëgg ñu gaawantu signé. Mhm. dañu am président bu bees. Mhm. amuñu dara lu ñu yàkkamti pour man. Mhm. li ñu wax mooy comme ni ko Guy Marius Sagna waxee par courtoisie. ak élégance républicaine. ñu xaar ba le président Bassirou Diomaye Faye ñëw ñu daal di euh, tàmbali liggéey bi. waaye nag comme ni nga ko waxee xam nga fu mu toll nii am na yu ñu signé woon ba pare te yooyu yëpp dañ koy càmbaraat. renégociation des contrats. mën nañu résilier lii euh, contrat boobu la. faaw mu am. nañ ko daan defee ndax nañ anam bu fekkee ne anam bi baax na. Mhm. man gëm naa ne ñoom nañu bàyyi contrat yooyu lu ñu ci mën a yokk ñu yokk ko ci. Mhm. mais bu ñu xoolee xam ne nañ ko defee woon baaxul dañ koy dindi loolu mooy tax mbir yi mën a jëm kanam. Mhm. lii alerte la. parce que bu fekk kenn gën nga gis mu wax ci muy Guy Marius Sagna kese bu dul woon moom doo yëg lu xew mhm. da jékki-jékki dégg ci euh, signé nañu contrat ba kenn du yëg kenn du tiin mhm. mbir mi di continuer di dem mhm. lu ñu lu ñu yàkkamti te amul appel d'offre waaw loolu moo njëkk a jaaxal ñëpp te moom président de la euh, république ne lépp bu ñëwee même ci yenn poste yi dafa am appel d'offre donc kon ñoom bul yàkkamti boo ko defee yàkkamtam man dama yaakaar ne alerte rek la mais wax ñu woon sax ndax yaa ngi gis euh, tamitam beneen communiqué bi nga xam ne envoyé nga ma ko léegi ñu ciy wax. Mhm. waaw parce que ñoom bi ñu yeewoo. waaw DG de la CERN dafa ne. Euh, mhm. euh, le DG de la CERN parle d'incrimination sans fondement ñu bëgg ko xamal rek ne que ni euh, pas mal de nañu preuve bi wane ni loolee am na. ndaxte ki mooy DG bi. mooy Saliou Samb. Mhm. la amoon ay ay ay affaire problème ak Ferdinand Coly. ancien international. ba ñu daan ko ci. ba fan yi ñu génn euh, dañu waroon def euh, saisie ci ay euh, bien am ñu daal di mujj daal di koy gàntal ba jëmi jamono keneen ki aussi nga xamante ne mooy ministre de tutelam waaw di Pape Sagna Pape Sagna Mbaye mi nga xamante ne mooy le ministre des pêches et de l'économie maritime mhm. moom it tudd nañ ko ci li nga xamante ne mooy xew mais li jaaxal ñëpp rek mooy yàkkamti bi ak woote bi nga xam ne woote nañ ko bëgg koo précipité te yeneen ñi nga xam ne bëgg nañ cee dugg daal di postuler daal di def seen offre ñu daal di ciy mën a bokk. xam nga man mooy li ma la wax ne la honorable député dafa alerté. bu mhm. ñu xam ko même bu fekkee ne tey dañ ko signé na ne leen passation de service amee ba ñëpp toog ba ni ñu jël lenge yi. Mhm. dañu ko xoolaat donc li ñuy yàkkam man précipitation bi ñu ci bëgg a def. Mhm. amul appel d'offre kenn xamul lan moo ci xew ñu bëgg ko signé. loolu mooy li nga xam ñëpp loolu la ñuy laaj lan moo xew. ndax dafa am lenn lu ñu ciy nëbb wala dafa am lenn ñu ci bëgg def loo xam ne awul yoon mhm. bu ñu ko defee itam bu kii ñëwee danañ ko xoolaat mhm. donc comme ni leen ko euh, Guy Marius Sagna demandé mhm. par élégance ak courtoisie ñu toog xaar ba passation de service am yoon ñu mën a continuer nag am amal li nga xam ne la ñu liggéey d'accord jarul yàkkamti. ayca balaa may ñëw ci Pa Ousmane mami euh, dégg nga li nga xamante ne moo moo moo xew actuellement fële ci Dakar Naval. Mhm. CERN ak euh, ministre euh, des pêche et des relations maritimes tey coow li li nga xamante ne moo ci moo ci moo ci juddee. mooy li nga euh, actuellement nga xam ne ñoom dañu waroon defar seeni bagage pour mën a dem mhm. ñuy note ñuy précipité wu pour signer des contrats wala ñuy précipité wu pour euh, placer euh, ay nit ci ay bërëb pour ñu mën faa liggéey mhm. Mhm. ndax nekkul loo xamante ne tey le président bi nga xam ne moo war a ñëw dina ko jural ay problèmes waaw enfin mën na ko jural des des problèmes dans la mesure où peut-être qu'il soit qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe mais enfin après on est assez informé par rapport à la tenue de beaucoup de choses lii li muy révéler rek mooy dafa am certaines pratiques yoo xamante ne ça commence à être des pratiques de tradition chez nous mm-hmm. te c'est ça qui n'est pas bien à encourager Guy Marius Sagna est quelqu'un qui est très averti Euh, ma je me dis même est-ce que du renseignement généraux parce que Guy <laughs> est hyper informé. Euh, dafa am ci ay yu bari yoo xamante ne teg na ko ci table Assemblée nationale ngoon ni te mujjul fenn la plupart du temps les gens n'en ont pas parlé. aujourd'hui il aura plus de chance d'avoir plus de visibilité parce que le régime a changé. Mm-hmm. donc euh, li nga xam ne moo xew Dakar Nave ak Sirn li nga xam ne moom moo ci jot a xew lépp. Mm-hmm. ce n'est rien d'autre que ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de structures ici au Sénégal on aura beau d'ailleurs gis nga toutes ces entreprises là yenn sociétés ba ci yenn ministères yi mhm. c'est-à-dire que avant ay passation de service di am dafa war a am ay service d'audit yoo xam ne ñooy ñëw il faut auditer la gestion des anciens mhm. ba nga mën a xam ni fan la ñu toll booy projeté wu nga mën a xam fan la jëm mhm. loolu déjà mooy culture bi lay permettre yow boo bëggoon a lalu njuuj njaaj sax di nga ko xalaat ndax di nga ne auditeurs yi bu ñu ñëwee fekk ma fi dinaa gën a am ay problème dinañu relever tu vois ay yoo xamante ne nii lu lu lu rafetul ak lu lu warta jekkal société ak ni mu war a doxee ci la bokk xam nga malheureusement on a de mauvaises habitudes maintenant au Sénégal c'est-à-dire une fois que même tu es implanté dans une entreprise à la limite tu ne prends pas les diplômés ou ceux qui sont qualifiés mm-hmm. da ngay gis ay contrat de recrutement moo daal agent maire yu bari sax yoo xamante ne ba mm-hmm. léegi dañu am problème gestion par rapport ak yooyu mooy ne dañuy recruter en masse te ñu ñuy recruter soit duñu xëy bu weer dee dañuy laal seen salaire wala amuñu benn compétence ca leen tabb loolu itam il faut que mu changer cest faut avoir la possibilité ou donner la Euh, personnes qui ont les performances pour ça ñu mën a exercer par rapport ak yenn domaine de compétence yi mais mhm. je me demande est-ce que le contrôle il est là lii dafay wane ne il faut encore recontrôler mhm. parce que tous les scandales yi précédé yu mel nii yëpp ak yoo xam ne yu ci bëri journal Libération daf ciy dikk souvent euh, c'est des choses qui se passent chez nous et des attitudes yoo xamante ne il faut mu am rupture côté boobu mhm. donc plus de contrôle seen équipe cabinet bi du ñu nelaw ñeneen ak ñeneen du ñu nelaw parce que dañuy soxla def benn mise à jour pour que ñu bàyyi traçabilité pourtant fii on a vécu des périodes yoo xamante ne nii on a vu des ministres occuper des postes après bi ñu génnee dañu am ay démêlés avec la justice. Mm -hmm. je me rappelle du temps sama sœur bi muy nekk cabinet ministre euh, Awa Guèye Kébé euh, ministre de la femme yu ci mel noonu da daan am mais fii rarement ngay dégg ci Sénégal par exemple ministre bu ñu épinglé mhm. wala député bu ñu épinglé wala sax yenn poursuite yi ci yenn chef d'État mhm. te pourtant dafa war a am mhm. parce que ñoom ñëpp dañu war a rendre compte c'est-à-dire tu dois pas avoir la possibilité ñu tabb la nga toog passation de service am nga dem bàyyi fa nag ay jëye yu rëy yoo xamante ne ma ay gap yoo xam ne dafay difficile à combler donc il va falloir auditer faire des contrôles situer des responsabilités et puis ñi nga xamante ne itam ay nit la ñoo xamante ne soit dañuy jaarale luubal ci ay recrutement wala jaarale luubal ci ay contrat yoo xam ne mën na nekk ay contrat yoo xam ne mënoo ko vérifier sax dans le fond mm-hmm. que ces gens là puissent rendre compte après loolu rek mooy mën a tax ñi ñi tegu ci njub gis nga fu yar nekkul maanaam quand je dis yar waxuma sax éducation je parle de punition je parle de sanction mhm. bu amul fenn rek sénégalais yi dañuy ama ama ama def sañ-sañu lu nekk te gis nga les autres pays yi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'étranger il y a des malversations yoo xam ne xalaatoo ko def ci sa àdduna doo ko xalaata def parce que traçabilité système bi ñuy teg mooy tax yow mi ci sa jëmmi bopp la ngay liggéey di ko weer de loolu rek man a am mhm. boo ci amee lu ëpp say heures supplémentaires lay doon mais on te on te donne des responsabilités on garde un regard ci li ngay def dañuy bàyyi gët bu baax ci li ngay liggéey xool ba xam ndax juba nga ca bu jubul ñu jubbanti wala ñu teggi la fa indi nit ku jub su ko defee yëri mën mbir yi mën a changé jërëjëf